leen di ziar eh, di leen di ñaanal yàlla ci musiba bi nga xam ne moom moo wàcc ci àdduna bi yëpp mu nekk feebar boobu ñuy wax corona yàlla na ko fi yàlla jëlee ndax tëj na àdduna bi yëpp tey àdduna bi yëpp ñu ci jaaxle ñu ngi ci tiitaange waaye yàlla mooy ki nga xam ne moo ko wàccee te moom rek moo ko fi mën a jëlee yàlla na ko fi jëlee ñu ngi tuub di sukk ci ronam di jéggalu comme niñ ko daan defee mosuñ cee jukk di ñaan yàlla lii mu jeex ci àdduna bi yëpp ñu ngi ndokkeel bu baax suñu président président Macky Sall ci mesures yi nga xam ne jël na ko pour rekk xeex ak jàngoro ji bam jeex ci àdduna rawatina fii ci réewam muy réew Sénégal ñu ñaan yàlla na yàlla jàppale ko ci loolu nga xam ne moom la bëgg te ñun ñëpp moom lañ bëgg. jël na ay matuwaay yu bari def ko dañ ko ndokkeel ndax ñun doomi daara lañ ku defar daara lu baax daañ la gërëm daañ la ndokkeel ku wax ci daara lu baax danañ la gërëm danañ la ndokkeel ku def ci daara nag danañ la gërëm danañ la ndokkeel danañ la ñaanal yàlla wax ji rek kontaan nañ ci nee na dina jëf kontaan nañ ci waaye bu egsee la ñuy gën a bëgg te danañ ci gën a ñaan yàlla ñu ngi koy ndokkee ci loolu nee na gis nañ trois cent et quelques millions pour dimbale ko yenn daara yi nga xam ne xale yaa ngi toog foofu noonu di jàng loolu boo ko defee ñun nga ko defaral ndax ku def dara ci daara rek ñun la ko defaral ginnaaw loolu ngeen na nee na mille milliards séddale na ko ni mu ko war a defee yëpp yëpp nag war a delluwaat ci askan bi ah ñu ngi koy ñaanal di ko gërëm ci loolu di ñaan timit ñi nga xam ne président mu ngi liggéey ak ñoom dénk leen li nga xam ne ci askan bi la war a dem nañ fexe mu dem ci askan bi gis naa ni nga xam ne moom la ko séddalee ci quatorze régions yi ci quarante cinq départements yi ci cinq cent cinquante trois communes yi nekk ci Sénégal yépp dëgg-dëgg séddale bi boo ko gisee ci kayit rafet na lool nañ fexe niñ koy jox na egg ci askan ba ko bañ ko war a jox nañ fexe ñi nga xam ne ñoo koy séddale ñu jot jo jotale ko askan bi nga xam ne ñoo ko war a jox kon nag président moom gàcc ngaalaam waaye yéen ñi ci des yéen ñi nga xam ne yéen lañ jox pour ngeen matale matale leen nit nag buñ ko wóoloo jox ko dara daf ko war a yeggale fi mu jëm président ñu ngi koy mastaw ci lii ndax nit la koo xam ne heure bu nekk mi ngi daan dem ci ay conférence ci bitim réew di dem di uti di indil Sénégal di dem di signer ay contrat di indi Sénégal tey loolu yëpp amut lam am mu ne dama koy dimbalee sama askan askan bi kontaan nañ ci loolu ñi ngi ñaan yàlla nag yal na yàlla jeexal feebar bi ci àdduna bi yëpp ñi nga xam ne ñoom la ci yàlla jël yal leen yàlla yërëm te xaare leen aljana ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi yal na leen yàlla yëkkati delluwaat ci seen askan ñi nga xam ne tim jotaguñ ci yàlla buñ ci jot ñi ngi wax ne nañ leen jël matuwaay yi nga xamante ni ministre bi dégle na ko mooy ministre de la santé nee na nañuy raxasu ba set nañuy toog nañuy moytu daje ay nit nag boo leen waxee toog leen ñu toog dëgg-dëgg war na am nooy jëflante ak ñoom loolu la président xam moo tax mu ne danaa génne ci sama gafat nàngam pour jëflante ko ak ñoom léegi nag loolu muy génnee pour jëflante ko ak ñoom ñi ngi ñaan yéen ñu ngi koy jox dëgg-dëgg eggale leen ko ci askan bi président ñi ngi lay ñaan ñi ngi jëm ci weeru sell mu nekk weeru koor weeru yërmaane la weeru njëgal la weeru lépp la ñi ngi lay ñaan couvre-feu bii yow yaay suñu kilifa yow yaay per de la nation tey ba nga ne ñun ñëpp huit nañ tëddi ñun ñëpp huit heures fekk nañu suñ biir kër yi keneen ku ko fa waxoon tamit du am li mu bëgg waaye kon lii nag dafay wane ne yow yaa fi nekk yow yaay jiiti réew mi te saw askan boo bëggoon dara askan bi bëgguñ ko dana métti bëgg askan bi ànd ak yow ba nga xam ne lépp loo bëgg askan bi bëgg ko ak dañ lay ñaan nag ci loolu weeru koor lañ jëm weeru yërmande la ñu puus mbir yi yóbbu ko ba vingt deux heures wala vingt une pour nit ñi nga xam ne nii amuñ fuñ dem nit ñi nga xam ne dañoo war a dem jëndi dogu nit ñi nga xam ne dañuy dem kër ma sàmba wala kër ma demba pour man faa dog ak ñi nga xam ne nii am nañ yéene defar ndog yu yaatu pour oo nit ñi ñi ñoo bokk koog ñoom ñu ngi lay ñaan loolu ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax nga la nag lépp lu ñuy séddale mun ci fàtte daara alquran yi mun fàtte école yi ndax yooyu noonu nga xam ne nii place yi jàngukaay la te ñooñu di jàng ëllëg ñoom ñooy yore réew mi ëllëg te ñoom tamit war nañ di leen dimbale yàlla dimbale nañu ba nga yàlla maye président boo xam ne xam na loolu di def loolu kon danañ ko sant danañ ko gërëm bu dimbal dimbali nag egsee ci daara yi danañ wàcc ay kaamit day jàng ay yaasin ñaanal ko yàlla loolu nag moom loolu moom ñun loolu lañ manee ñi ngi wax tamit ci beneen mbir boo xam ne xew-xewi jamono la site internet yi nañ moytu di wax loo xam ne xamuñ ci dara am na benn xale bu jigéen bu ñu wax ne génn na àdduna ci anam biñ ko fekkee ñaaw na bëgguñ cee jaar mais maa ngi gis benn site du ko duma ko tudd ndax loolu la bëgg waaye du ma ko tudd muy wax ba naan xale bi maamam muqaddamu Baay Ñas la fii képp ku nekk rek ña fa nekkoon ku ci nekk rek sa maam wala yow am nga taalibe Serigne boo dun te waxuñ ko te ba ñuy bind bi ñuy wax ci loolu sit boobu bi muy wax mu naan am na doomi milliardaire bu mag bu fa nekkoon lu tax tudd milliardaire boobu mu yam yi ñu tudd Baay Ñas moom nañ ko bàyyi Baay bu amee lu baax duñ ko tudd Baye Niass mooy nit koo xam ne moom rek la yàlla may bi àdduna di àdduna ba léegi mu taxaw ci benn jataay wax ashhadu an laa ilaha illa allah ñu bëri plus de neuf mille personnes wax ko moom wax na ko ah mu ne bam bam ba mu wàccee ci tamane ba mu waxee laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahul ilahu qaalaha al kufaaru wal majuusu wal umarau taabati nufuus kon kooku noonu lim liggéey ci lislaam dëgg-dëgg ëpp na loolu nit ku nekk melal lu la neex amal lu la neex waaye ku mel ni Baye Niass ak li mu def ci lislaam bi kenn amu ko kuy tiitaroo lislaam di wane doole lislaam foog danga ci boole Baye Niass kooku yàlla ko may te yàlla moom moo ne innal fadla bi yadillaahi yuuti man yashaa nga neen mu loxo yàlla moo koy jox ku ko neex Baye Niass nga neen ci loxoom yàlla jox na ko Baye Niass te dëgg-dëgg ku ñëw da nga xam loolu ñu ngi gërëm nag mboolem président ministre yi nga xam ne ñu ngi jàppale wante ak askan bi di góorgóorlu ci askan bi ñoom ñëpp ñu bëri ci ñoom wane nañ ne askan bi ñoom ak ñoom ñoo bokk ñun nag bu ñuy wax gannaaw fii lañ nekk ci dakaar di militer fii ci dakaar Dakar mënuñoo wax te tudduñ monsieur le ministre Amadou Ba gërëm ko ñaanal ko yàlla tudduñ madame la ministre Zahra Iyane Thiam gërëm ko ñaanal ko yàlla sama ministre bopp kooku sama nijaay la sama mag la sama xarit la mu nekk monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam gis nañ wax yu leer yu mu def barki démb ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla na ko yàlla gën a dimbale yàlla kattanal président ba yéen ñi nga xam ne yéen la dénk lii mu war a def ci askan bi ngeen fexe mu yegg ci askan bi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaan ci réew mi jàmm yal fi yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm yal na fi yàlla def jàmm yàlla jeexal fi mbas bi ci àdduna bi yëpp yàlla am na ko mën na ko yal na ko yàlla def koor gii ñuy dugg yal nañu yàlla may kattan buñ ko wooree may ñu alal bu ñu wooree ak alal juñ mën a dimbalee buñ mën a doglee tim nit ñu oor yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alayka salaatullahi thumma salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fika